asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen siyaare di jiital ci nuyu ak siyaar bi sunu yaakaar Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan sunu borom doole ko fa yàggal baax mbokk yi tey ñu ngi ci kër Serigne Mbacke Fall Euh, moom maam Cheikh Ibrahima Fall ko fi nekkal tey di Serigne Bassirou Fall Alxuraan yàlla na ko fi yàlla yàggal xam ngeen ne euh, ci weeru mag weeru tedd muy weeru koor wi ni ko buntu kër njabootu maam Cheikh Ibrahima di defee noonu itam ne lañ koy defee fii ci kër Serigne Mbacke Fall euh, ki ko jiite muy Serigne Bassirou Fall Alxuraan ak i rakkam muy togg ndogg di yóbbul ki fi nekkal Serigne Touba waaye xam ngeen ne Serigne Bassirou Fall Alxuraan moom liggéeyam ci weeru ko yëpp daf koy jébbal magam di xalifaam di eh, sering eh, Cheikh Jëmm fa di ñaan sun borom yàggal ko fi baax a baax xam ngeen ne moom day yóbbu ab liggéeyam lépp rek ànd ak njaboot gi yóbbu Serigne Cheikh Fall jëmb waaye bés bu yàlla sakitam itam gi di xëy ka Serigne Cheikh jëmb xam ngeen ne eh, niñ ko rek am am fa mbana woo xamante dañ leen ko wax ñoom itam ñu yor ko di ko liggéey bu am solo ki ko jëte di soxna soda Jaxate mom Serigne Mbaye Jaxate waaye moom soxna Aminta fal moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride diina xam ngeen ne moo jiite foofu ci waañ wi nekk sëriñ Cheikh jëmm di waañu sëriñ Bassirou Fall Fane moo tax ñu ñëw fii nag ci kër gi fas yéene euh, saytu nag ni ñuy taxawoo liggéey bi fii waaye tamit waxtaan ak mbokki taalibe yi dañuy dugg ci biir rek xam naa ànd ak jëwriñ yi def ak ñoom waxtaan ci ñu leeral ñu nan nañuy liggéey liggéey bu màgg bu tedd bi ci weer wi di weeru ko la la la ọba. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serigne bi ñi leen di dalal jamm ci barab bu tedd bi ak wéru tedd bi ak ci liggéey bi nga xamni baaxo ngeen di fi ñew di dina fekk muy liggéey bo xamanteni ni ju tedd je baawul mouride Cheikh Ibrahima Fall moko dal liggéeyal sangam bu tedd ba Cheikh Amadou Bamba muy liggéeyam ndog yi nga xamni Cheikh Ibra wax nañ serigne touba moko joxon digël ci liggéey muy ay ndogu yo xanté ya saxolon wéru koor wu né mu togg ko yit ko ñoom tedd ba Cheikh ahmad Bamba Khadim Rasoul dañ liggéele bo xamni xam lako dalé diko def defal nako señtu wa fukki at ak ñatt ci njaareem ginaaw mu defal ko Cheikh mudou Sow Mbacké ñetti at njaaru Cheikh Rafal gën diko def la dal ci Cheikh Moustapha Fall mi fi jëk tok ba ji sëñ Abdou sakour tay ci Cheikh Rafal yépp diko def ngeen ñew ci barabu tedd bi sëñ Bassirou Fall alcorane ñuy wax ci turam ak ci ndigeelam mu fekk fi ak mbooleem rakkam yi mbokkoo sëñ Mbàkke Fall gépp nag ak njaboot gi sëriñ bi nag ni mu liggéey mooy topp ki fekkal Cheikh Ibra Fall sëriñ Cheikh jëm mooy jëwrinam moom la jox léppam moom it lay jébal ab liggéeyam saa soo xam ne weeru koor wi teeru na buñ xëyee mbooloo mi ak njaboot gépp danañ àndandoo daje li ñu xëy ci kër sëriñ Cheikh jëmb yenn fa di togg ndog yi ba mu ñor buñ ko toggee ba noppi ñu sëf ko ci ay ñu tànn ci mbooloom sëñ Bassirou Fall alxuraan ñenn ci mbooloom ñu ànd ak mbooloom waa kër sëñ Cheikh Jëmb ñu yóbbu ndog yi lee Touba lee Njaareem bu ñu xëyee del si waat mboolem li nga xamante ne ñu ngi ko indi sëriñ bi ci ay xeetu ay gàtt ay ganaarak ak ak jur goo xamante ne lépp ndog yee ko tax a jóg da koy dajale jox ko sëñ Cheikh Jëmb lay doxee topp fi nekka nekkal Cheikh Ibrahima Fall luñ ko jox ko mu jox ko lu lum la géey jox ko ko moo waral togge wuñ ndog yi ci biir kër dañ koy togge ci kër sëñ Cheikh Jëmb soo xam ne kumte ñëw dañ fi togg nag ay toftal yoo xamante ni dana bari man naa am bu ngeen ñëwoon ci yor yor wala ci bëccëg da ngeen fi tekk ñu fiy togg lu bari loo xamante ni dañ koy togg di ko boole jeeg ndog yi muy xeetu toftal yoo xamante ni mbooleem kër yi ay kër ci bu koy def loola danañ ko def ci kër gi xanaa tam dañuy gën a góorgóorlu nag soññi bokki taali bi ci liggéey bi ndax liggéey la boo xam ne que Cheikh Ibra moo ko doon liggéey liñam bi te diggée na ci yiw woo xamante ni ak ngëneen yoo xamante ni képp koo xam ne saw ñaq tabbi wala sa doole wala sa wërsëg njariñ la la jural ak fuk adina ak alakhirah kon dal ñu gën ci farlu gën koo fonk te lepp luñ man def ko ci ndax señ Bassirou Fall alxuraan kat saa liggéey bi jotee soxlaam yépp ak yitteem yépp ci liggéey bi koy def dootu am sen soxla wala yitte lepp lu fi ñew mëni lañ koy señ jax jëm sa su mbooloo mi xëy seet mu nañ ci gër señ ba nonu dal lañ koy jappo mo señ bi ak rakki ak njaboot gi ba nga xamanteni ba wër ko du jeex non dal lañ koy doxale waaw waaw xam nga togg ñam joxe nag dafa am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ni benn jullit boo reggal rek moo gën a màgg tam ay jàkka yu ba junniy jàkka rawatina nag jullit bu woor ba ngoon jot nga togg ndogu jébal ko ko njow ñam woo xamante ni moo gën a seel ci ñam gën a mucc ayib nga xamante ni man na lépp loo xamante ni da koy taaral ci mu mu taaru ci mu mel na war a mel danañ ko ci def ba noppi nag joxe ko da yàlla tax te loolu képp ko sak pay moom ëllëg yoom a xiyaam suñ borom rek ko mën a xayma waaye du doomu aadama ndax waxuma sax doomu aadama waaye mala rek boo ko mu lot wala mu xiif nga fexe ba regal ko la la ci suñ borom di fayee ci yërmande jooje ak maanaam jëf jooje asamaana nga defal ko doomu aadama na nga defal ko ku ko mën a defal muy sëñ Tuubaa te Cheikh Ibrahima Fall mi koy def kat nee na ndog yi bal sëñ Tuubaa kat ku ci def benn tànk dina jégal juróom-ñaari sa xeetu ndey sa xeetu bàyyi lu ko gën a rek amut ndax nun kenn ku ci ne yaa ngi jéem nan ngay def ba mën a jëf luñ la jégale justement ñu ne lo xamanteni bo ci tabale dara waxuma yow de waye sa ndey ak sa bay ñep dañ leen jéggal ba jéggal seenu xet kon lo pay mu ko gëna mag kon laal jëf la jo xamni day maye ngërëmal yalla jëf la jo xamni day raggi xol jëf it fajaajo la ko xamni am nga ñakare adina wala paju aaju go xamanteni bëgg nga ci lu gaaw dang koy def ci liggéey Cheikh Fall amul lenn lu ci nit di def ren bu deewon togi ci bop ak yok kon liggéey bu mata jëf la bu mata sakko sàkkoo la te seigne touba mi koy defalit am nag pay gu ma sëkk ndax nee na jaali bi topp ci sama ginnaaw bu ma ko doon xayma li ma suñu borom defal mën na ni lu dul jeex maanaam taalibi yu tolle pépp suuf yi nee na bu ñu ko tooboon am naa ci yéen añ yomal xiyam di tax lu ma yor jeex wala niyel abraar fi uxraaya daan xiraaya gaa yu baax yëpp sëñ Tuubaa na moom lañ te bu yomal xiyaamee la ko suñu booyam defal du dayal amul yemukaay pay la goo xam ne amul jeex nga xam ne mboolem def buñ ko toppoon dana am seen añ te du tax li yor jeex kon ñu gën cee soobu gën góor góor te sellal ko ànd ci yegg ak teggin te lépp loo xamante ni war ma la ci yoo xamante war na ci jëf ji ñu fexe koo matale te xam ni njariñ rek la ñu jural yéen nag seenu liggéey rafet na ndax saa su nekkee ci liggéey bu mel nii danañ leen ci gis te ni leen di gisee yéen wan Lamp Fall ci géet ni leen leen di gisee mboolem këri si Yàlla Fall yëpp loolu nag wane ne li ngeen nekk dëgg la waaye nag yàlla na leen yàlla kattanal ci barkeb Cheikh ba ngeen bokk ci presse yi gën ci àddina te yàlla na ko am nañ ci yaakaar yi ndax gis nañ ni nag bi gis nañ ñi mi ci yoon wi na ngeen xamni kam rek ngeen di jëm nak bu soobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullah yalla suñu borom defal tawfiq ñu téw ko ñu bari ci barki Cheikh ibrahim bi ci kër seigne Basir Fall alxuraan de ñoy sant yalla yoni yonent seigne Basir Fall alxuraan ak suñu kilifa yu baax yanu boolee ak noonu liggé bi ñu fas ko yéene di ko liggéey tàmbalee woon ko ci Modou Moustapha nag seigne Basir Fall alxuraan mi nga xam ko togal seigne ko togal Cheikh ibrahim rek ko ñor ba ca kër seigne Abdou Sakor Fall ca kër seigne Modou Aminta Fall dekk ba ci kër sëñ Cheikh Faal gi bis bu set ñu di ci gën di amuk yokkute ak ak ak deggu nak ki ñu andal ku deggu la ku pastefu ku top ndigal fas yéene nag ñi di taalibe bi nu and ak mom deggu top ndigal pastefu fas yéene di ko liggéey liggéey bu sel non lañ ko gisee sëñ Bassirou Fall alquran ku togal maam Cheikh Ibrahima rek moko ñoo na soxna adam Gaye nak ay surga rek lañ ci kaw ak soxna Ndumbe sis ñoy nga fa wara doxé yoonen fa wara dem jëwriñu góor ñi sëñ Mat Jóob mbana mooy jëwriñu góor ñi ca kër ca kër sëñ Seex bu Faal ñu di ko liggéey liggéey bu sell saa bu kumte ñëwee daf saa yu kumte ñëwee liggéey bi day yokk ndaxte saa yu kumte ñëwee dañuy fas yéene lañ defoon ca kumte gee ñu fas yéene buñ mënul lu ko ñett cay def lu ko ñaar ci kàttanu Seex Basiru Faal tam it ñu ngi koy def saa yu kumte ñëwee rek liggéey bi day yokk fajar lañ ci commencé tàmbali ba nëgëni liggéey bi saa yu kumte ñëwee day gën di yokk kàddu yu mujj yi moom may sant yàlla yonente bi ak sëñ Basir Fall alxuraan di ko ñaanal mu yàgg fi lool Fall tëwér ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp nu yàgg lool Fall ci ginnaawam ak soxna Sooda Jaxate ñu yàgg fi lool tëwér di nuyu ñëpp ta di leen soñu bu baaxa baax ci liggey bi nga xamni sa su nek du noppi diko wax suñu defarug adda ak alakhirah ci la nek waxtu nekit soñe bi du ku ci dongay yi te lépp it dara waralu ko lu bëgg ñu bëgg xam kan moy maam Cheikh ibrahim Fall bëggit ñu xam ab baye fall lan moy taxawayam ci kër sëñ Touba neena nak taxaway bi naka jek nim terai, koy waxe rek gennu ndigal yi baye tere yi waxna na ni liggéey bi lepp lu ci nit jéem boko deful rek ci sa pas-pas la waye ku ne xam na ni ki ñukoy liggéeyal defar na aduna defar alakhirah kon nak lolu saa su nekk du juk ji diko ko ñun ñi nga xamni it ño and ak mom di liggéeyal mam Cheikh ibrahim Fall ah kenn ku nek ci ñun bu xolé ci jëmmam ndax lepp lu muy santane mo ciy jitu mo ciy ëpp pëseef mo ci ëpple kon kenn talibé bu nek bu xolé ci lolu sëriñ bi warulaa la soñu na nak santana bu baaxa baax ci téwaay ci jëf yi nga xamni ño jall fi tay ji neena na ni ñu ko kumte lu nek dañoo wara a daje ta fas na yéene wu jall rek wi ci wara top gatchal ko lolu nak dara du ko mayee lu dul waxtu wuñ fu fi rek ñu gëna fédeli waat laxasaay yi te gëna takku ni mu ko lu fi way jiem dal boko amul rek ci sa pas-pas la waye jëmmam ji kep lu ci nit fas te ñaan ko ci jëmmam ji liggéey gi mu liggéeyal cheikh Ibra te mu wër nañu lu ñu lu ci nit jéem man ko kon neena ñu gëna fedd di laxasa yi ta xamni suñu sunu jaamu yalla mi ngi ci jëfe ndigal yi dara wu ci fonk wëru koor wi buñ ci duggé ndog yi kenn ku nekk japp ni sa morom la ci man buñ ci jugee addi yi bu ñëwé kenn ku nekk jappé ko nonu yaakar na ni buñ défé lolu te wé ci ndigal luñ ci jëm dinañ ko man neena nak mi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp bu insha allah rabbi dina tejj waxtaan wi ndax tey yaakaar naa ni ñi ngi koy xaar bari na ndax ab soññeem it li muy def ci taalibe yi yaakaar naa ni kenn mënu koo def ci ñoom loolu it xam naa donga yi ñoo koy ñaan ndax dañu woon du wax jox ndigal maam saaliw ak ñoom Baay Sàkk waaye nag taalibe yi ñoo bëgg di dégg kàddug sëriñ bi ndax li mu mën a def ci seeni xol wóor na ma ni ku dul moom mënoo koo def ci ñoom kon nag loolu it donga yi ñoo koy ñaan Fall neena na mi ngi len di nuyu lu bare bare bari eh, mi ngi len di sant cant gu amul app eh, cant gi mu len di santit da ngeen ko jëf neena na su ngeen ko jëful woon it du len ko wax neena ndax am lu ngeen xam ci mom neena kon jëf ji ngeen jëf ta yalla tax waaye bi yàlla taxee ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra yéen a moom seen jëf waaye it ngeen jaarale ko ci moom bi ngeen ko jaaralee ci moom nag te yàlla boole ñu ko yéen te ni mu leen ware noonu la ko ware nee na kon bu ngeen ca nekkee seen kem kàttan ba mu xam ko Niana warna lena sant waaye nag mu di len xamal ni jef joo dégg rek ab soñe la nee kon nak li mu len di wax itam ab soñe rek la ci yeen nee na yeen ñi fi tew ku ci jug itam na nga ko wax kanen wala ka ngay dajel nanu fonku li yàlla danoo bind ngir ñu jaamu ko te bind nit ngir laneen wa maa xalaqtul jinna wal insi ilaa li yaxbudooni nee na bindul jinne ak nit lu may ñu jaamu ko te jaamu googee nanu ko def ngir ni mu ko sante waaye bu nu ci bëgg lenn bu ñu ci bëgg àjjana bu ñu ci ragal sawara kon nanu ko def ngir nga xamanteni ni Cheikh Ibrahima Fall minu yakar da ci nekkon and ci ak Serigne Touba te beggu ci won aljana ragalu ci wonit sawara neena kon lolé alquran wax lolé ci la Cheikh Ibrahima Fall nekkon kon nañ sax ci li soññe bi nak amna ci lo xamanteni ni jërul la wax sax ndax neena jotaay bi rek soñe la neena li waral yeen ñepp ngeen tok ci suuf mom mu tok ci kaw neena lool rek ab soñe la neena li waral mu ni won du wax ñu ni ko na wax neena lool ab soñe la neena ta yag na ko wax neena suñu sunu jatai tay Kufidugu. ku fi dugg dooni l'islam dooni ak taalu taalibe néew fi te suba ba ci ngoon kenn du fi dégg ak nodd kenn du fi dégguk liqam nee na kon lanu ko may mooy soññee bi nee na jërë ngeen jëf léegi nag nee na nañu waajal kumte gii di ñëw nee na am na ci ñoo xamante ni la mu leen di wax laaj ay ndogu ngay joxe ab wala ñaari junni nee na yàlla dalay jaral nee na kenn ku ne ci ñun lii nga xamante ni moom la ñu nekk na la jaral jaay sa télévision wala jaay sa téléphone wala jaay say yére nee ndax kat nee na ñay def leneen dafa am loo xamante ni da leen a war suñu amee ngànt loola war na leen nee leela war na leen laneen it war na leen nee na kon nag ñun ñitam la mu wareel ñooñee lanu lii ware nee na mooy suñu lépp nee na nañu bàyyi caaxaan yi nee na rajab gi fii daa fees dell màggal gi it fii dafa fees dell waaye gis ngeen nee na kaar li fi teewoon teewut nee na lam daan wax rek nee na loolu lay dollu di wax koo ci xamante ni li ñu nekk doyu la nee na nga seet laneen nee na jërë ngeen jëf